nee na mi ngi sant mbooloo mi fi teew. nee na mi ngi sant yàlla bu baax. moom jëmm Serigne Saliou képp la koy xoolee. daf maa jël yaayoo ma. daf koo jël yaayoo ko. ki tax ñu xamante ba tax ñu jàppante. ki tax ñu xamante ba tax ñu ñoom ñaar. idaal lañ koy lañ koy wax. ndax Idaali lay jokkool lu bëri. ndax moom Idaali lay jokkool lu bëri. ni ma dinaa la présenté sama yaay. mu ni ko dinaa la boole ku baax. muy soxna Aida Saliou muy soxna Aida Saliou. ma ne ko lenn rek de neex na ma. mu ni lenn képp neex na ko moom. turam wi ñuy jël di ci teg Serigne Saliou. turam wi ñuy jël di ko teg Serigne Saliou képp neex na ko. tax na mu bëgg ko te gisuma ko. tax na mu bëgg ko te gisagu ko. ndax man képp ku ñuy jël di la méngale Serigne bi. ndax moom képp ku ñuy jël di la Serigne Saliou. jël sa tur di ko méngale turu Serigne bi. jël sa tur ko méngale turu Serigne Saliou. dama lay fonk. neen da koy fonk. moo tax mu fonk. nee tax mu fonk ko moom mii. def ko sama yaay. def ko yaayam. mu doomoo ma lool. mu doomoo ko lool. di ma conseillé. di ko conseillé. di ma bàyyi xel tamit di ko bàyyi xel lool. bi mu ko njëkkee jot téléphone. bi mu ko njëkkee jot téléphone moom. dane ma doom dama lay suivre lu bëri. daf ko moom doom dama lay seetaan lu bëri. waaye dama laa bëgg ngir ñaari bëgg. waaye dama laa bëgg ngir ñaari bëgg. dama laa bëgg ngir Serigne Saliou. dama laa bëgg ngir Serigne Saliou. bëgg la ndax ni nga bëggee waali. ngir bëgg la ni nga bëggee waali. te samay doom ngeen yéen ñaar ñëpp. te samay doom ngeen yéen ñaar ñëpp. chaque jour mu woo ma téléphone. chaque jour mu woo ko moom mii. di ma laaj ba xam ba waale ngi ci jàmm. di ko laaj ba xam moom moom waali mu ngi ci jàmm baa mu ngi am tawfeex baa mu ngi am tawfeex loolu yëg-yëg la loolu nag yëg-yëg la ak doomoo ak doomoo moom it xam na fi ko waali teg moom it xam na fi ko waali teg lii rek firnde la ndax li képp firnde la ndax yombul de ndax yombul ñi ko bëgg bëri na ñi ko bëgg bëri na lool amuñu ko amuñu ko ndax waali jox na ko cër ndax waali jox na ko cër te it bàyyi na ko xel te it bàyyi na ko xel yaayoo na ko te yaayoo na ko moom it doomoo na ko moom it doomoo na ñi nga xamante ne ñoom ñi nga xam nag dañ ñi dañ ñi dañoo bëgg waali dañoo bëgg waali mënuñoo bëgg waali mënuñoo bëgg waali bañ ko bañ ko c'est impossible c'est impossible parce que waalee ko bëgg ndax waalee ko bëgg màkk de ku fa dem màkk de ku fa dem yonent bi moo lay woo yonent bi moo koy woo jaarale ko ci yenn jëmm jaarale ko ci yenn jëmm jëmm jooju ñëw ci yow jëmm jooju ñëw ci yow yóbbu la màkk yóbbu la màkk waaye du pexey waali waaye du pexey waali pexey suñu borom la pexey suñu borom la mu na lu mu tuddoon la lu mu tuddoon la Serigne Saliou ak Serigne Saliou ñaan nga fa ñaan nag ñaan nga fa ñaan nag Serigne Saliou yëg na lépp Serigne Saliou Mbacké yëg na lépp dina ko xëpp ci kaw dina ko xëpp ci kaw jaam ñi ndax taw bi rek firnde la yëpp ñu ngi jàpp Ndakaaru fan ngi wow ba sëñ Muntaxa commencé kaamil ba ba léegi mi ngi taw ba léegi mi ngi taw kon sant sëriñ bi kon nag sant sëriñ bi dong moo de war dong moo war ginnaaw bu ñu jullee ci yonent bi ginnaaw sant sëriñ Tuubaa bu baax a baax ñu koy ñaanal lii nii lii nii buy demaat buy demaat mu nekk man mu nekk ci kër borom jërëjëf Amar yàlla na ko na ko def kaddu gi joxaat ko soxnaay dama sëriñ Saliou mu delloo ko jàmbaari Serigne Saliou ji di Modou Amar bisimilah. toogaa damaa xam ne lii lu ñor la. bu yóbbu ay Makka ñu ne Waly moo ko yónni délégation Waly jëf moo waral ma toogaa. yow Amar li nga def tabarkalla macha allah yal na la yàlla fal can li nga fi wax cuune mënu ko ndax waalee la bëgg moo tax ñu bëgg la ma yaayoo la def la yaay loolu dara mënu koo fay yal na leen yàlla fal can yàlla bàyyi ko doomam bismillah soxna yi de nee na li muy wax ci ay kàddoom sangam bu baax ba jërëjëf Serigne Saliou nee na moom kat lii ak cant rek ko war neena li ko Serigne Saliou def ak li mu ko defal ak fi mu ko jëlee ak fi mu ko yóbbu nee na ku fekk Aida démb fekk Aida tey ni jërëjëf Serigne Saliou nee na doomam ju baax ji yegg si di Modou Amar bu sëriñ Saliou nee na démb ci guddi nee na kat bi fi biisu ngoon a nekkee nee na biisu yàgg nañ fi ñu nag moom daanaka 3 heures du matin la fi jógee nee bi muy dem bëggut a dem baas moo koy nee na biisu ngóone baas bi moom moo koy baas. la ci waali. na biisu yaay la ci waali. ndax moo Kinde ñoo bokk ndey. nee rek a bokk ndey. muy ndeyu waali na muy ndeyu waali jege lool. te biisu ku ko xam-xam ne. nee na biisu ngóone ku ko xam-xam ni. mayewul dara. nee moom kat mayewul dara. waaye démb kat ah fii la fanaan nee na baas bii moom moo ko baas nee na moom kat daa waxaale baas te Makka la ko woowe ni ko mu ni ko ah yaay sa doom ju baax ji bu la yóbboo Makka waali ba pare te ñun defuñu dara xanaa ñun faramaareen yi defuñu dara doon faramaare bëgg te sama dem màkk nga xam nee na nit di nga ko yóbbu màkk. bëgg nee na nga bëgg ko. ay ñooñam xaw a nee na ay ñooñam xawa a am lu def si kanamu waali. te bu ko defoon na moom kat ñooñu bu ñu ko defoon am na mat goo xam ne du waali rek lay bëgg. ku waay àndal nee na nit boo bëggee nit da ngay bëgg waajuram bëgg soxnaam bëgg baayam mbokkam bëgg fameem. nee na Waly Seck képp ku ma am. damaa dafa a bind sama anniversaire le mars. nee dafa mës a bind anniversaire am mars. mais Sénégal ni ko Sénégal yi yéen laa bàyyee sama bopp seetal leen ma pare. a nekk parrain anniversaire bi yéen sénégalais yi laa mu ni leen Sénégal yi bi nga xam ne mooy parrain anniversaire bi yéen Sénégal yi laa koy bàyyee. booba nee na booba day xool Sénégal yi moom mi xam na ku mu bëgg wala kan laa àndal. TikTok bi yëpp bi bindal ko ñaar ah Serigne Saliou Mbacké wala Waly. loolu xam nga ràññeeku na a naqaree nee na Sénégal yi ñoo gën a naqaroo gëmloo mbir. waali nag nee na waali balaa ko sekk doomam bi mu koy bëgg. booba ba yaay yi bariwuñ. nee na booba yaay yi bariwuñ. li may liggéey. nee na moom li muy liggéey. jafe na ku koy liggéey ci jamono ji jafe na ku koy liggéey ci jamono ji ñu toll. xaritu ñëpp ngay doon am jàmm. nee na xaritu ñëpp ngay yëpp ngay bëgg. nee na musiciens yi nekk ci àdduna ñëpp ngay bëgg. mbër yëpp ngay bëgg. mbër yëpp ngay bëgg. waykat yëpp ngay bëgg sëriñ yëpp ngay bëgg. waykat yëpp di nga leen bëgg waaye sëriñ si tamit di nga leen bëgg. man nag nee na moom li mu doon da koo jaayante ba lu mu am dina ko jël. du def lii xew ci jamono. nee na moom bokku lii xew si jamono du ko def. su ma la bëggee. nee na moom bu la bëggee. ba la yawa. ba ni la yawa. damay lépp ba xam ne yawa. nee na day natt sa lépp si àdduna ba xam ne yawa. su ma nee yawa nag dootu yawa. nee na bu nee yawa dootu ni kenn yawa. waali nag ndokk ay bokkam dofuñu. nee na waali doful ay bokkam dofuñu. ndax ba ma nee waali la. nee na ba mu nee waali la. di jël samay engagement di jël ay engagement am. barke Seydina Mohamed. nee na barke Seydina Mohamed. nee na xaarul sax gisanteeg waali bay xaar xaalisam. barke Seydina Mohamed. barke yonent ak aj gi yàlla bu ko yàlla nee ak aj gi mu jugee bu dee waali bi ma koy bëgg di ko waxal di ci nekk man man am naa lenn lu may xaar ci waali nee waali bi mu koy bëgg xamul waali gisul waali déggul waali da ko bëgg ngir jëm yàlla ak Serigne Touba barke Seydina Mohamed barke Seydina Mohamed di ko galeere nag nee na muy galeere waali fu kenn ñemewut a dugg fu kenn ñemewut a duggul dina sol dàllam wa dugg fa. lu waay wax ma tontu. lu waay wax rek dina ko tontu. ba am ci la ma bëgg. nee na ba mu am la mu bëgg ba cër bi ñëw. natt ci sama bopp ba ne sénégalais yi nag bàyyi nañ ma xel te dégg nañ sama kàddu te li may wax ma ci dellu. nee na mu natt boppam si Sénégal yi xam ne bàyyi nañ ko xel te li mu wax du deltu ginnaaw mukk. waali sama na waali balaa ko sek mii lii mu def. ah moom doomam la. maa gën a bëgg jaaga. nee na yaayam ji ko jur di jaaga soxna Aida mu Serigne Saliou moo bëgg gën a bëgg jaaga waali. ku seetaan li xew. nee na ku seetaan li xew. xam ne junj doy na borom xel. nee na junj doy na borom xel. xam nga ne waajuram bëgg doomam. nee na waajuram ku bëgg doomam. te mu jur matu xam li ci doom. te mu matu jur xam li ci doom. waali yaayam juru ko rek teg ko ko rek te nee na waali balaa ko sekk yaayam juru ko teg ko ci mbedd mi rek bañ koo xool bàyyi xool na ko da ko ne xam ay bët. nee na xool na ko. waaye gis sama jëf ak waali ak waali yóbbu gi yóbbu Makka. nee na mu gis jëfam ak waali ak waali yóbbu gi mu ko yóbbu Makka. jaaga boo xoolee keroog tabaski. nee na jaaga boo xoolee keroog tabaski. aal bi mu génneeg waali. aal aal bi mu génneeg waali. la mu wax doomam. nee na li jaaga wax waali doomam. la mu xëpp doomam. li mu xëpp doomam. te muy mbégte. te di kontaan. di kontaan. yóbbu bi na ci doomam yóbbu gii mu ko yóbbu Makka aa ah, jaaga yaayu Waly ànd na ko nee yaay gor. nee na bi ma nee ko yaay gor. billahi yaay gor. jaaga ni Waly billahi yaay gor. li nga yenu attanoo ko da ngaa gore mu ne ko Waly sama doom li nga yenu attanoo ko da ngaa gore. mu ne ko mënoo ko. waaye yaa gore. waaye Waly yaa gore. waaye tegoo ko fii fii nga waaye Waly nag tegoo ko fii sa kanam da laa rek da koo teg sa bopp. mu ne cay ku lay caprice. mu ne ko Waly cay ku lay caprice. lay xamuñu la. mu ne ko Waly sama doom Sénégal xamuñu la. maa nga ko xool de. daa ngi màkk di ko seetaan. waaye xam naa yóbbu ma doomam ci yóbbu. nee xam na ni jaaga yóbbu gi ko Waly yóbbu di doomam. wallaay ndokk ba mu dee bi mu dee Waly. cay ndokk ba ma Waly bettee. nee na bi ko Waly doomam bettee. di réew mi xat-xat xat. nee na réew mi li muy xat-xat xat. photo bii. nee na photo bii mu jàkkaar lool. ku weddi na ko weddi ci réew mi ku ko fi am. nee na bi kuy dox si Sénégal ba bitim réew kenn amu ko. du photo bu yàgg de. nee na bi du photo bu yàgg. keroog bi Youssou Dieng di maye doomam la. nee bi Youssou Dieng a ah, doomi ndeyu Waly bi mu maye doomam. maa ko Mbaye ah, dama ne ci baas bi jël sama sees toog. nee na moom mi Mbaye xaritam bii di doomi ndeyam ñoo ànd mu ni si baas bi jël seesam toog. day xool fan laa tolluwaale. nee na mu xool moom kër fan la tolluwaale balaa ko sek damaa xam sama bopp nag am ful am man. nee moom miy toog xam na boppam am na ful la mat na. dama ne toog waali jóg fa mu toogoon ne may leen ma moom. daa toog fi mu toog waali jug seesam ni garde yi may leen ma sama yaay laa jëm. waaw ah. ñëw ma sukk ci sama kanam toog ci sama kanam. nee mu fóon yaayam sukk ci kanamam tallal koy loxoom. ba nu fa jógee di génn di dem. nee na ñoom ñaar bi ñu fa jógee di génn di dem. dama ni bëreet mu ni bëreet. nee na moom dañuy bëreet waaye balaa ko sekk ni bëreet. daal ñëw rek daal di may kott. nee na bi mu ko kottee. déy bii jaaxaloon Sénégal ay nag. nee na déy bii ko waaye déy jaaxal na senegal lool. booba daf ma doon déy ni may yaay amu lu ma la fayee. nee na mu ne ko yaay. man de amuma lu ma la fayee. yaay dinaa la woon Seydina Mohamed. mu ne ko yaay mu ne ko yaay dinaa la woon Seydina Mohamed ndax man Seydina Mohamed rek laa bëgg. may defar sama anniversaire mu wëlbatiku taxaw Ida ni koj ko ni sa yaay mooy anniversaire. nee na muy def anniversaire am Ida li mii koj ko ni ko sa yaay tey am na bis bu rëy. mu ni ko sama yaay ji la ñu waxante woon ca suuf maak moom. mu ni ko sama yaay ji ba nu tasee sa Youssou Dieng la ma ko waxoon maak moom rek ko xam. na ko waaj. nee na mu ni ko Idaali waaj na ko soxna Aida Saliou waaj. vidéo yëpp ci internet bi. nee na vidéo yëpp a ngi ci internet bi. waaye Modou Amar. nee na Modou Amar bu Serigne Saliou. kenn rek la ci waali. nee na kenn rek la ci waali. waali wayam léegi li ci ëpp lépp sëñ Saliou. nee na waali wayam lépp Serigne Saliou borom jàpp la rek lay woy. waali day woy sëñ rek. nee na waali balaa ko sekk Serigne Saliou rek lay woy. bu woyee moom lay tëjee moom lay ubbee Serigne Saliou rek. nee bu tàmbalee Serigne Saliou lay ubbee bu tëjee Serigne Saliou lay tëjee. te bu la koy woyee nee na waali bu woy Serigne Saliou àll lay woyee Serigne Saliou. secret boobu nag. nee na boobu waali genn wàll gi soxna Ayda ko moom. nee na genn wàll gi soxna Ayda yaayam ji toog moo ko moom. genn wàll gi Modou Amar mi. waaye genn wàll gi Modou Amar mu Serigne Saliou woo ko moom. la a ngi nii nag. nee na Modou Amar mu Serigne Saliou ku mat a ngi nii toog. ku a ngi toog. nee na nit ku regg ngi nii toog. moom ku ku a ngi nii toog. nee na ku bokk ci ku baax a ngi nii toog. mbaakol mbaakol ku liggéeyal Serigne Saliou a ngi nii nee na nit koo xam ni. ku liggéeyal Serigne Saliou borom jàppandal. famille boo ci teralee kenn teral nga ñëpp. nee na aw askan nag boo fi duggee seppi si kenn teral kenn teral nga famille bi yëpp. waaye Cheikh Amar ni mu def Serigne Saliou. waaye Cheikh Amar borom jàppandal borom jurul borom xabaan borom ngot borom lagan ni mu def Serigne Saliou. nee na kii bu dee bokk na ak Amar. di dereetu Cheikh Amar. Ah, waaye dëgg kii kii kii maa ngi moom nii rek la war a mel kii maa la waaye nee na moom ñoom ñaar nii rek la mën a mel toogaayam bii dafa mel ni Cheikh Amar mu Serigne Saliou woo toog. faramaareen yëpp ñëwoon te moom ñëwul. nee na faramaareen yëpp bu ñëwoon te moom mii ñëwul. ah dinaa ne ko yow la kan. mu ne ko Cheikh dina ne ko yow la kan. Modou Amar yow la lii rek la war. nee na Modou Amar sa tànk yi nga dox rek la war. waali ci moom la tëjee barki dem Bambay. nee na waali si yow la tëjee barki dem Bambay. waaw dëgg la de Bambay nee na Bambay bi mu yëngoo ñëpp soxla waali yow rek yaa yëngal Bambay. sama doom démb galas dafa ñëw ni nee na nee na galas doomam dafa ñëw ni ko yaay Modou Amar xam nga ko. nee na ñii ñoom kat moo leen jur. maay nee na mooy seen yaay fii ci Ndakaaru. dénkuma waaye nee na galas mi fallu jox leen yow ma càmm ña mbéy mi kunta yaay mbeen 45 la sëñ fallu toog ba 68 nu kur ba ndànk raf la mel nee na dénk na la ko. bu la soree na nga nee na bu la soree na nga jël galas. ba nu ñëw quartier Cambérène. nee na ñii ba nu tubaa Touba mu ñëw quartier Cambérène. man la leen yàlla nee na ñoom la leen yàlla booleel. maay seen ndey fii mooy seen ndey fii ci Ndakaaru. loo mën ci nee na moo amal mu Serigne Saliou loo mën ci njabootu soxna Aida rek def ko. yow galas nee na galas dénk na la Modou Amar. ki ma booleeg yow. nee na ki la yow. nee na jàmbaar ji bëgg na ko lool. nee na yóbbu gi nga wax ni di ko yóbbu déwén. nee na Modou Amar mu Serigne wu def ko saxel xel. nee na na ko boole say bis de. nee nga essence bi nag boo fi jógee verse ko. nee na tey jii si ngeen gi lay tàggoo. ni leen Modou Amar. moom Serigne Saliou moom Serigne Saliou. Ah, waaw doomu Ndeye Waly. doomu Ndeye Waly. mooy Sakkali. nee na nee na Modou Amar doomu Ndeye Waly feem mi Waly def defaat na feem wa. nee na ko déwén yaa ma yóbbu. barke Serigne Saliou dina ko sàppali. nee na déwén nee na bu déwénee sa pas-pas ak sa bëgg ak sa ñaan su yàlla yàlla ko suñu borom def. nee na Serigne Saliou xam na ne di nga ko def. te boo ko mënee di nga ko def. te boo ko mënee di nga ko def. nee na yàlla na nga ko tal. nee na waali balaa ko sek. nee na ba nu jàppantee ba tey. ak tey. sant naa nee na moom kat sant na Serigne Saliou bu wér. waaye xam naa sant na Cheikh. waaye moom tamit si waali sant na Cheikh Ibrahima Fall. Amar bi na mu jëbee Massa Ngaye. kër jéggi Baye Góor Baye Lalla Fall. maami Cheikh Fall Baye Góor. Modou Amar def nga wu feem. Lamine Mbaye nee na Modou Amar. def nga li la war. yow kat def nga li la war. bisimilah dama nii rek la war dama nu. waaw waaw. ñëwalul waali nag boppam nga sa bopp nga ñëwal. waaye Lamine mbay nee na mi lay sant. kii to taxaw mu damar Lamine Mbaye mi ngi taxaw mooy président groupe keppaar gi. keppaaru Soxna Aida Saliou mi ngi Tivaouane Peulh mi ngi Thiès wër na Sénégal. waaye jëmm ji taxaw moom mooy président bi nañ koy jox mu sànni ay kaddu. ne Lamine Mbaye nee na Cheikh. li ma ciy dolli du bari. nee na moom kat li mu ciy dolli du bari. nee